mbokk yi jërëjëf dal leen jàmm ci suñu plateau le point coronavirus le point Covid 19 ñu fas yéene ñëwaat gindi leen gunge leen wax leen lépp loo xam ne moo mujj ci xibaar ci jàngoro ji nga xam ne nii bàyyiwul Sénégal bàyyiwul beneen réew bu ñu xoolee sax ci bëccëgu tey bi coronavirus jot na laal lu toll ci 169 états ci 198 yi nga xam ne Nations Unies répertorié na ko. ñu xam ni kon luy law la ci àdduna bi yëpp 169 réew ci 198 yi am ci àdduna bi coronavirus dugg na fa laalagum na lu tolloog 340 000 personnes maanaam ñetti téeméeru junniy nit ak juróom-ñetti fukk ñu bàyyi ko xel ci ñooñu bu ñu jëlee xaaj bi wala lu ko yées tuuti 90 000 jot nañu maanaam nee nañu wér nañu ba génn ci ñi ci des ñu ngi hôpital quinze mille nit ñàkkagum nañ ci seen bakkan ci àdduna bi yëpp quinze mille personnes ci jàngoro boo xam ne bi mu feeñeek léegi wax nañu ni ci bi muy feeñ ci ndoorteel novembre